ma dem xool lan la bu ma demee hopital ñu xool ma camp militaire laa njëkk a dem buñ ma xoolee ñu ne ma du dara ñu bindal ma garab ma ñëw di naan taxul mu changé ma tegle am biir bu daw deux semaines sama biir di daw mu daw daw daw noonu ma kon delluwaat hôpital ñu ne ma naa dem régional léegi ma fa demee dañ ma ne bi chaque samedi lee day ñëw pour ma def fibroscopie bu ma demee samdi ma dem bind sama tur yëpp ma ran ma dem def fibroscopie bi def naa ko ñaari yoon ci jour boobu parce que dama njëkk a def mu ne ma baaxul mu essayé waat ñu defaat ko ma ñëw ak résultat yi mu ne ma lii liquide moo ne sa biir. boobu biir bi réyagul noonu fur et ma dellu si mu jox ma garab mais naan noonu biir bi continuer biir bi di génn di rëy di génn di rëy di génn di rëy damay bëgg a lekk sax du ma am appétit te sama goro di ma ne doo lekk ma ne ko man daal xiifuma sama yaay bu ñëwee ñu ne ko mu ne kii di lekk parce que day tayal a lekk ma ne leen teyal lu ma lekk sax biir bi mooy fees ñu ne ma ah ma ne leen waaw noonu may suivre suivre traitement bi ba sonn docteur bi mu ne ma fii de du ma la duñ la fi mën a faj xanaa nga dem dakaar nga dem essayer foofu waaw laa may dem Dakar njëkk naa dem La Paix am na analyse bu ma fa dem defi ji tamit jour boobu ma demee bureau bu ma dugg su ma waxee mu mel ni dañ may daw daal su ma waxee mu mel ni amuñu jot ma jaabante jaabante ba sonn ma dellu si delluwaat si ëllëg si mu mujjee def analise bi jot résultat yi yóbbul ko docteur bi bu ma ko yóbbulee yëpp mu xool si la ma ne dama lay bindal benn kayit boo demee hôpital boo dem Dakar boo ko wanee dañ xam ni commencé nga faju fii Ziguinchor ñoom dañuy continuer rek mu ne ok mu waxtaan si sama goro bu góor bu jigéen yëpp ñu ne ma waaw pour ma dem bu ma demee ma woote sama ñu ne ma danaa dem principal ndax sama mag bu jigéen foofu lay liggéey ma demee principal mu boole ma ak benn daam bu ñu ma dem Sow lañ koy wax xaw ma fekk ñu ngi waajal. dem nu mu tuddati seen pèlerinage dafa nar a dem Mecque léegi mu ne ma naa la boole ak benn médecin mu bindal ma këyit ma dem bu hôpital bi si gannaaw principal nu mu tuddati sax Dantec bu ma demee danteg nekk fa ak benn daam tamit daam bi may def analyse ak moom bu ma defee analyse bi ñu ne ma analyse bi day génn semaine prochaine bu may delloo analise bi. fekk daam bi tukki nekku fa mu am ku fa nekkoon di def stage moom moo jël analyse bi mu liir mu xool yëpp ñu bindalaat ma beneen bu may dellu fekk kooku tam nekkatu fa ñu boolewaat ma ak keneen ba tey découragé wu ma ma continuer noonu bañ ma mujjee ne dañ lay hospitaliser mais fii amul place ma ne leen d'accord ma delluwaat ci sama mag bi ne mu ne ma te ñoo jéem a ut fii principal des cher mais dinañ xool nu ñuy def ma ne ko d'accord bañu ma dara man naa wér rek moom moo ëppal solo dellu principal bu may hospitalisé principal maa ngi nekk Brévier ak docteur Sow ma hospitalisé deux semaines Brévier saa yu ñu ñëwee. dañ ma defaral perfusion duñ ma defaral sa perfusion dañuy ñëw ñi jël sama deret ma saw ñi jël saw bi dem defe ji analyse yëpp def naa scanner yëpp bu ñu xoolee ñu ne ma ba tey moom la ñuy wër gisaguñu feebar bi mais liquide moo ne si sa biir acide moo ne si sa biir noonu bañ ma libere ba ma génn foofu fay fa xaalis bu weextaan ba tey sax waa principal dese naa leen cent et quelque si hospitalisation boobu yeggal yeeguma ko ma continuer ñu ne ma léegi da ngay dem ngay dellu si di ñëw ay rendez-vous ma ne leen waaw su ma demee ma ñëw rendez-vous dem ñëw rendez-vous noonu bañ ma boole ak docteur sii ndaw kay safula docteur ndaw lañ ma booleel cardiologue ñu ne ma sa xol bi moo am problème mooy bàyyi ndox bi ci biir bi ma dem cardio ci docteur Ndaw ne fa ak Ndaw damay def analyse def échographie def lépp mi rajo amul rajo bu buñ ma defaralul principal su ma defee bu xoolee ba pare mu ne ma mais résultat yi lu mu c'est bon ma ne ko mais résultat yi c'est bon lu taxit ba tey biir bi. wàccul mu bindal ma garab yàgg na ndax maa ngi fàtte tuuru garab yi sax mu bindal ma garab ma jënd garab yi di naan garab yi day dem ba manqué Dakar ma woo sama mag mu yónnee ma garab yi ndax damay dem ba biir bi day diis du ma mun a lekk du ma mun a dox ma woo ko ma ne ko maa ngi ñëw suba hôpital su ma demee ma ne ko defaral ma ponction ndax dama sonn foog ndox bi wàcc mu defaral ma fonction mën nañ génné 3 litres d'eau ma ñibé même pas une semaine bir bi wat ndox ma nekkat ak mom nekkat nak mom ba bu ma dellu ñi defaat ponction dafa dem ba ponction bi sax daanu ma koon fay ndax dama ko ne amatuma xaalis pour wax la dëgg rek amatuma ku may ñaan ndax ñi di liggéey sax duma la liggéeyal ne ma déedéet bu wax loolu xaalis fajul gàcce dele faj ma ne ko effectivement mais man tàmmuma ñaan liggéey rek laa xamoon defaral sama bopp ne ma d'accord noonu ba tey ndaw expliqué wu ma waxuma sax dafa ma ne rek xol bi moo feebar mooy bàyyi ndox ci biir bi pour wax dëgg man loolu rek laa xam ci sama feebar ñi def may woo sax pour ma expliquer ko sax man sama feebar du ma xam lan lay wax ndax man loolu la ma ndaw wax ba bu ma ka nee sama mag bu ma nee naa wax docteur bi mu jéem a defaral kayit ma ut visa ba xam ndax dinaa mën a dem faju Europe ma wax ndaw saay ma waxee mu ne ma tey suba waaw biir bi day rëy rek mun na fi sax ëpp mu jàpp sama yii lay jàpp bu diisee day jàpp sama yii ak faar yi du mu lekk lekk sax bu ma ñëwee fii laa commencé di lekk normal waaye mun naa xëy Dakar ma ndékki ba suba ndékki du ma lekkaat dara daal ma métti man daanu moon toog sax di jàmbat su ma jàmbatee feebar rek xamal ni bopp bu métti la dee naa sama bopp bi day métti loolu kese mooy sama feebar mais à part du ma jàmbat feebar ba feebar bii nu ma dikkee bu ma demee port port nag médecin bateau bi si la ma ne ma ne ko léegi yow bu dee mun nga ma expliquer yow docteur nga xam nga sa morom docteur lu mu bind si kayit bi war nga ma mun a expliquer mu ne ma xaaral ma expliquer la ko mu jël temps am liir ko yëpp ba pare. mu expliquer mu ne ma foog ñu defaral la opération bu mu wax ndax opération bi la ñu mun a def pour mun a xam cause ndox bi mais opération xol bi buñ ko defee taxul ndoxu biir bi jeex ma ne ko loolu duma ko def man cause biir bi mooy sama cause moo war a moom moom laa bëgg mu wàcc moo tax ma bëgg a def opération mais du ma def opération xol ba xol boo xamante ne xaw ma métitam musuma yëg wen métitam ma def opération xol biir bi des nii déedéet man biir bi moo ma intéressé su ma defee opération ma xam ni biir bi day wàcc dinaa tëdd def opération mais duma def opération bu nga xamante ne xol kese la te biir du wàcc mu ne ma ah loolu de moo ne si kayit bi mooy lu ma la liiral nii yëpp ma ne ko merci si la ma ne bul jël oto boo jëlee oto mun nga def rechute ma ne ko ñetti atu yàlla ma am rëccu xol te du tey la ko yàlla di def ma ne ko bu ko yàlla naree rek sama bakkan na yem si yoon bi waaye bu ko narul dinaa dem ba yegg Ziguinchor te dara du ma jot ndax musuma am rëccu xol musuma yëg méttitu xol bi métti man méttitu xol bi ngeen di wax hôpital moom laa am musuma ko yëg musuma sentir sax sama xol di métti man biir bi mooy sama cause moom laa bëgg ñu fajal ma mu wér ndax xaw ma bànneexu sëy xaw ma bànneexu doom dañ ma yaral rek sama doom bu doon hôpital da ngay dem ñi wax la lu leer neex na dégg nga man faju nit ku ñuul mosuma ko bëgg sama yaay wax na ba sonn ma ko ya ya ya man yalla la gëm mune ma karis nga ma ko lo wax baxna na ko yalla na ma fekk hôpital ba man yalla rek duma fajj nit ku ñuul mëno leen wax ba ma dem ci fajj nit ku ñuul man fajj hôpital rek faju yalla mais hôpital waxu ñuma joxu ñuma preuve man lu waral ma nar a toog si ba tay parce que tok na fa ñetti atu yalla na kay ñetti atu yalla war nga wax nit lu leer man tey mënuma dem rek dina sama jëkkër jox ma xaalis dina sama goro jox ma xaalis ma dem faju buñ ma nee lan mooy sa feebar aw ma sax explication lenn rek laa xam xol bi rek mooy métti mooy bàyyi ndox ci biir bi loolu du loolu loolu du question sax loolu man sax su ma la ko waxoon sax da ngay teew da ngay ne kii bëggul nit ñi xam feebaram wala moom moo bañ a wax feebaram cause bi laa bëgg ñu wax ma lan la ak lan laa am ban genre feebar laa am loolu laa bëgg a xam Philippe Senghor laa amee doom gëw ma de waaye loolu man mënuma ko xam xam nga met tey moo xam fajam moo ma mun a xool mu ne ma feebar bi ci lii la la dalee wala feebar bi ci accouchement bi la wala ci lii ak lii nga jëlee feebar bi te lii ak lii moo lay faj xanaa kay man su ma tiimee sax samay mag wala sama yaay wala sama goro ma am lu ma wax wala sama jëkkër waaye aw ma sax lu ma leen di expliquer ndax xaw ma sama feebar nii rek laa ci gis comme ni ngeen ma gisee ñi bokk ci yam ma xam ni biir bi day rëy rek te du arrêté te dara du yëngu ci biir day dëgër kicc dara du yëngatu jiñ nañ ma fi ëmb jiñ nañ jiñ nañ ma fi fibron amul luñ ma waxul waaye ba tey gisuma dara te du fibron du biir du dara man cause bi laa bëgg ñu wax ma lan la ak ban feebar laa ame su ma xoolee nit sax mën ko wax de lii laa amee feebar tel moo ma jàpp foog nga mun a xam ci lan ngay faju foog ñu mun a xam kii ban feebar moo ko jot waaye dañ ma ne rek acide liquide moo ne sa biir acide la liquide kese kese kese ndax am na beneen tur waaye man de xawma ko man moo ne sama xol man naa wér rek man nañ ma dimbali rek faj ma ba ma wér ñu wax ma xeebu ma fen bu dee fii la jigéen tamit ma faju fi ba wér man daal ku ma mun a dimbali rek mu faj ma mu wax ma ban feebar laa amee mu faj ma gis feebar bi mu mun ma faj mu faj ma rek te yàlla tax loolu rek lay ñaan man daal ku ma jàppale rek mu mun a trouver sama feebar mu faj ma te yàlla rek tax ma jël lu ma am rek jël bu dee fii la tamit Dakar lu ma am rek jël mën naa wér rek ndax boo mu noo def dara munoo faj see soxla munoo xëy noo def dara fi ma toog ni dañ may fóotal lépp lañ may defaral du dara lu ma a def man daal nañ ma faj rek te yàlla tax dimbal rek laay wër nekkuma sama kër yaay nekkuma sama kër jëkkër sama kër xarit yaayam mooy fii ma ne moo ma gis mu ne ma kañ dem ci sama yaay xëy na côté boobu am na ñu faj nit ko ñuul nga toog fa faju ba wér da ñibbi dem xool sa waa kër yi woon sax sama yaay gis ma même sama goro di sama doom sax bugguma kenn gis ma si état bi ma toll ndax nii laa fa jógee depuis 2019 buggatuma delluwaat nii ci 2021 bii ñi gisaat ma noon moo tax ma ñëw nëbbatu fii Fanda toog dénk lépp yàlla mover.